ndaxte rek euh, démb ñu ngi amal seen lancement ngir rek daal di taxawal seen mouvement ay mag yu bëri si Sénégal daal di si bokk ngir rek daal di firndeel seen ànd ak Ousmane Sonko na rek euh, fii kenn du fi laalee euh, seen njiit di Ousmane Sonko ak kii di Ousmane Sonko nag daal di jël kàddu rafetlu seen taxawaay si dajaloo bu ñu def daal ñëw ànd seeg moom ak kii di Ousmane Sonko nag ma ngay rek ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi ak ñi nga xamante ne dañ leen dénk ay pastu ñuy sàcc alalu Sénégalais yi ak kii di Ousmane Sonko nag nee na 2024 bu neexee yàlla moom gëm na ne moom mooy nekk président ah, te bu boobaa nag ku sàcc alalu askan bi moom Ousmane Sonko daf koy nangu ba nag ñu daal di leen yóbbu sa kaso ga kii di Ousmane Sonko nag yokk si ne ñi nga xamante ne dañ koy complot di nes ay pexe ngir rek mu bañ a bokk si élection 2024 yi moom Ousmane Sonko nag nee na ñooñu calculé wu leen sax faale leen ndaxte rek nee na yàlla rek moo ko mën a tere bokk si élection 2024 yi. xibaar yi nag ñu ngi ko daal di jëlee rek si les échos yéenekaay ak alerte yéenekaay jaa ngi jëf gaay